xibaar yi jamono ji ñi ngi ci coow loo xam ne daal kenn xamul kañ lay fay lépp daal leneen ko yóbbee rek mooy bind boo xam ne bind nañ ko ne daal dañoo affecté général Kandé ca Inde loole kat ñaari yéenekaay sax lañ ci daal di diir di tribune ak le quotidien ba tax na seen directeur de publication da leen convoqué fa nga xam mooy section de recherche ba tey publication décret bi nga xam ne moo ñeel bu président la république wax ne kat général Kandé moom ci boppam dañ ko yóbbu tugal loolee daal dañ ko daal di traité ci li nga xam ne kat mooy ne yéenekaay kat noonu lañ war a liggéeyee lenn loo xam ne daal ñoom jot nañ ko cee mooy amul ba tax tamit traitement bi nga xam ne moo ñeel wàllum xabaar daanaka sax ñu bëri yaakaar ne kat dañoo fare bii boor wala manipulation ci bële boor kon ñu gis ne kat loolee loo xam ne kat boo xam ne dañ koo daal di jël sànni ko tasxir xibaar yi ndax ñu bëri gis te ne kat dafa am wàll woo xam ne kat ñenn fa leen féetee waaye ñu jàpp ne kat loolee daara amu ci presse bi nga xam ne kat moo nekk ab presse indépendante moo fi am ba tey ba tax na ay ndëgg sërëx la yoo xam ne bu buñ ci defoon nank rek daan ci tàbbi waaye tamit nañuy defee li nga xam ne kat mooy saytu wàllum xibaar fexe ba daal di koy càmbar seet ko seetantal ko laata ñu koy jox askan wi loolee gis nañ ni ñu bëri ñu ngi ciy daal di xar seen tànk tubay ba tax na kat kenn mooy ko ndax liggéey tasar xibaar dafa am ci yu sukkandiku waaye explication yi nga xam ne moom la ndogal ba tukkee ca njiiti réew mi ne kat yéen nag ci tasar xibaar gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo leen di dëy loole ñooy nar a yàq seen liggéey mukk loolee amut kon ñu ci bëri bari am ci seen dégg-dégg waaye lii nga xam ne daal bëgg nañ koo wax mooy mbir politique dafa mel dafa daal di bëgg a rax ci mbir mi kon ak intention bi nga xam ne moom la général Kandé am daal di porter plainte ci kanamu justice waaye ñoo xam ne kat ñoom nee nañu kat ay défenseur général Kandé lu ba tax na nee affectation bi nag moom bëgguñu koo dégg waaye itam rôle taskatu xibaar nag moom rombul lu dul informé ak li nga xam ne kat mooy lay informé te mu nekk dëgg taskar xibaar yi war na noo tamit di moytu ay explication yi nga xam ne dañ koy jàppale ci seen xel te loo xam ne amul benn ndëgër laay nañu daal di joxe xibaar ca na mu wéree waaye fexe rek ba lii nga xam ne tamit war nañ koo moytu te kenn du leen ci gàkk loolu tamit ñu ngi leen ciy xaar liberté ci tasir xibaar nekkul ne ku la neex jam ku la neex bind te loole amut ci benn preuve déedéet du demee noonu kon lii nga xam ne daal mooy tollale gi maanaam lépp loo joxe am fu sukkandiku loolu mooy liggéey bi te liggéey bi rafet ca loo nekkat la ñuy xaar tasir xibaar yi ci réew mi.